tey bésu àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février bi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim ci ñaari junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ak ñaari test yi ñu def ñaar téeméer ak juróom juróom ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom ñi xam ne ñooy cas contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci ñaari téeméer ñi xam ne ñoom la ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll te ñooñu seen lim ni la tëddee fukk ak juróom-benn ci commune de Thiès fukk ak ñaar ci Dakar Plateau juróom-ñeent ci Kédougou juróom-ñaar ci Kaolack ak Tivaouane juróom-benn ci Diamniadio Richard Toll Wokam ak Parcelles Assainies juróom ci Kër ak Yëmbal ñeent ci Géejawaay Mbour Médina ak Pikine ñett ci Amitié 2 HLM Grand Yoff Kébémer Liberté 2 Liberté 6 Linguère Mariste Mbacké Ouest Foire Petit Mbao Point E Sacré-Cœur Touba ak Vélingara ñaar ci Almadi Amitié 3 Birkilan Cité Keur gi Derklé Dieuppeul Diofior Foundiougne Grand Mbao Liberté 5 Mermoz Passy Pout Rufisque Sébikotane waxinaan ak Ziguinchor benn ci benn barak Cité Soprim Fann Résidence fas Fass Mbao Gibraltar Gueule Tapée Grand Médine Kolda Kounoune Liberté 3 Louga Mamel Matam Mboro Ngor Niakhar Nioro Patte d'Oie Saint-Louis Salémata Sicap Baobab Sokone Thiadiaye Thiaroye ak Yoff ñaari téeméer ak fanweeri malade si ñoo xam ne ñu ngi ci hôpital ak ñi ñu topp ci biir kër yi wér nañu bës niki tey nañu génn bu ci yàlla ànde juróom benn fukk ak benn malade ñoo nekk réanimation juróom-ñeenti malade ñàkk nañu seen bàkkan bésu démb talaata fukki fan ak juróom benn ci weeru février mi nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak benn ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom benn ak juróom-ñeent ak juróom wér nañ si juróom-ñaar téeméer fukk ak juróom-ñeent ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-benn si lalu hôpital yi ak si malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi.